Ousmane Sonko président de la République Macky Sall ba woon président woon amul droit di dalal ay saagakat je l'ai dit je l'ai répété et je le maintiens mooy sama conviction ma conviction mooy Ousmane Sonko premier ministre il n'est plus opposant il faut que loolu tamit mu leer ci bopp nit ñi Ousmane Sonko n'est plus un opposant il est premier ministre il incarne une institution il incarne moo mooy njiital gouvernement wu réewum Sénégal te nekk euh, premier ministre pour sénégalais yépp am na loo xamee ni mën na dalal ñépp ku ko neex mais sur le plan de la communication photo bi d'accord ma ci j'ai le droit de donner mon opinion sur ça te photo bi d'accord wu ma ci xamul tax combien de sénégalais on perdu quelque chose ci manifestation yi ki se disent des pro Sonko doon xeex ndax Sonko ñi ci ñàkk seen bakkan am na ñoo xamee ni dagg nañ ci seen tànk wala seen loxo wala ba tey ñu ngi hôpital ndax dañoo gëm Sonko man nga dem ca ka ka ka eh, waajuram wala ka ka ñàkk doomam photo ak ay waajuram en tant que ku falu ñëw ne ni léegi falu naa man maay premier ministre nga génne photo boobu moom laa gënoon a d'accord que nga génne photo boo xamee ni à côté ñu ngi lay teqalee comme na ma doon teqalee kay saaga ñëw président de la république dalal ko j'ai vu même dans les réseaux sociaux des gens du parti Pastef wala ay militants Pastef ñu gëm Ousmane Sonko ne ko kon na nga dalalee diw mais ñun tamit da ñoo war a dalal parce que ëpp ñu lu ñu xeex parce que ñun ñu ngi woon ci biir kaso am na ñu nekkoon ci biir kaso pendant une bonne période ndax Ousmane Sonko wala ndax xeex pour Ousmane Sonko mais ñooñu anañu est-ce que warul photo wu ak ñoom kon bu dee logique bii la ñuy topp pour moi c'est une erreur de communication te staff bi ka bi ànd ak Ousmane Sonko ba ci kaka photo am na loo xam ne warul woon a nangu muy génn mën na doon une photo privée entre privé parce que mën naa ñëw ak Bocar ñu ñu def benn photo privée boo xamee ni ñun la parce que c'est un souvenir pour moi mu doon souvenir pour moom militant bi c'est mais militant militant ou casseur kii nga jël adoubé ko tey teg ko nii photo ak moom bind ko euh, dalal naa diw ba photo ak moom euh, te euh, maa ngi ciy jaar pour nuyuwaale ñëpp ñi nga xamee ni comme moom bërki dem le ministre de des transports Malick Ndiaye maa ngi koy nuyu dafa dem dakaar dem dikk nañu dañu war a ubbi enquête si ñi tas wala ñuy ay bus su Dakar dem dikk kii lan la doon def su xeer bi fan la doon dem kum ko doon sànni yaakaar naa def loon lancer pois de di sànni nii pour am nangami mètre da doon sànni pour atteindre quelque chose ou pour attendre quelqu'un ça la police ça peut être mais c'était pas un une pierre bu ñu sànni pour def lancer poids c'était pour atteindre quelqu'un est-ce que atteindre na ko je ne sais pas ce que parce que attention le premier ministre tey police dañoo nekk ci daanaka commandement ndax mooy premier ministre ministre de l' intérieur euh, muy moom muy chef du gouvernement ministre de l' intérieur jiite police ministre des forces jiite armée ñii ba ñuy xeex police lañ doon jàkkaarlool gendarmerie bokk ci euh, armée tey premier ministre ñoom ñëpp daf leen a njaboote muy police muy gendarmerie. neexul ci police wala gendarmerie ñu gis si ñoom seeni ñoñ am na ñu ci gaañu am na kuñ ci dagg loxoom ndax grenade lacrymogène bu bu bu écla bu éclaté ci loxoom de ab gendarme Mohamed mais kooku bu doon sagoom tamit premier ministre ñëw dal ko photo ak moom pour wone ni la démb weesu na tey on est tous des sénégalais te ni ma jiitee ñi doon. wala ñi ma ñi ma mënee wax ne ni ñi doon dem di di sànni xeer di taal ay ay ay pneu ci bopp koñeeg yu mel noonu il le faisait pour moi noonu laa mënee waxee ni yéen ñi nekkoon di xeex tamit pour le rétablissement de l'ordre vous le faisiez également pour le Sénégal et je suis le premier ministre aujourd'hui du Sénégal te dafa waroon dalal les policiers qui ont eu il eu des victimes du côté de la police de la gendarmerie il y a eu des victimes du côté de civils ñoo xam bokkuñoo Pastef dara am na ñoo xam ne yàq nañ seen mbir lépp euh, y des images yoo xamee ne pour moi c'est une c'est une grosse erreur de communication te waru ko def. rapidement monsieur Diouf lecture par rapport ak bala ñuy jàll ci yeneen point yi par rapport ak cette image nga xam ne euh, ñu bari rafetlu wuñu ko.